الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيلو كوسي تي في جسان فيلو كوسي فيلا باي نكون 1929 ولا لو جيتو 1929 داخ سوما ياي فوفو لا جودو تي 1924 لا جودون نيوم فوفو لاني في لاني دكون دكو نيون كولا مدينه لاني فاكون رك دفا اي نيك su weeru koor jotee baay yónni sama baay mu dem jiite ji naafila foofu waaye moom fii ci Kossy la nekkoon barab bii nag moom baay dafa xeroon lool ci mujj dundam pour mu dund ndax nee na dafa gis yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko nangeen ngeen dundal Kossy baay mu ne fim mu ne dem na ba nekk mag dem na ba nekk mag am na ci at soixante-quinze ans dem di dundalaat dëkk dana jafe waaye xanaa kon ñu dundal jikko yañ nekkee woon ca Kóosi moom la yonent bi sallallahu alayhi di wax waaye ba léegi dundal jikko yi ak dundal dëkk bi dañuy ànd li aju ci dundal dëkk bi Kóosi amutoon ndox sama maam asta nettali na ma dañ daa dem ci ay barab yu sore sori pour uti ndox koosi amutoon làmp léegi bi ngeen defee forage bi man man demoon naa Paris jënd kii nga xam ne mooy mottali ba mu àgg mbitt yéen bi ma ñëwee itam wax deug yalla da ngeen ma may exoneration fayuma ci ben deureum pour dédouanement loolu ndimbal la lampe yi amut fa won ci jamono man ma ñaanon lampe yi mu ñëw way bi ñëwee itam digg bi rek la ñu la lon tey ci sen ay lampe yi dem na ba kursi demb demb rek lañ doon inaugurer taal làmp yi waa kuus yëpp génn wane seen mbégte wane seen kontante bul sutura gii nekk ci suñu wet andi indi nañ matériel bi moom itam danañ ko taal koosi càmmeen ci weti koosi mbittéen moom itam làmp yi dana fa àgg jërëjëf jëf daf ko war a jiitu ñun suñu leen waxee jërëjëf tey def nañ ko ci palaasam def nañ ko ci ñoo xam ne itam dañ leen a war a jë jërëjëfal ndax sant ku la defalul dara ñàkk fayda la waaye su ngeen ñu defalee te santuñ leen su boobaa loolu itam duur jullit bu baax sax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man laa yashkuri naasa laa yashkurullah ku santu nit doo sant yàlla yàlla wax na ci alquran ne la in shakartum la azidannakum ñi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamina ci xéewal yi fi feeñagum ñi ngi ñi ngi ñaan dool la nitam comme ni nga ko junjee léegi ci sa wax place bi ñun place yi liggéey lañ ko jàppee biñ fiy ñëw jumaa ji nekkut fi woon dispensaire bañ def fële nekkut fa woon école bii ñuy tabax itam nekkut fi woon case de Tout-Petit bii ci sa gannaaw nekkut fi woon te ñi ngi namm loo xam ne moo gën a rëy loolu yépp mooy université ba la ñu tuddee université Alaaji Ibrahima Niass ca dakaar dañ ko bëgg a toxal fii pour gën a dundal place bi gën a gën a dundal itam borom place bi ndax la ko dalee ca Kosi ba ca pomba yépp bàyyee fi nekkoon lii ay toolam la lii ay kër la yum dëkke woon ak taalibe yi nga xam ne ñoo njëkk uy si ooteem te loolu ñi ngi ciy seentu seen jàppale ndax defe naa région bi amagut université université boobu su ñëwee incha allah dina nekk université bi bi nga xamne ne ñëk fi ci salon man bañ ko sosé rek fañ togon di réunion pour waaw légui nak fan la def université bi ma ne nañ ko yóbbu kawlax ñu ne ma deug deug nak euh bëgg nga kawlax ba mëpp waaye nak université mënuñ ko yóbbu kawlax ndax ben amu aéroport te té amna professeur kaya xaya dañuy ñëw joxe sen cours jëlat sen avion dem su fekkoon na sax am ngeen aéroport tantan waaye man loolu moo njëkkoon nekk sama xalaat waaye ñoom ñoo dox ba ñëw ne ma dañoo bëgg université bi ñu toxal si ko fii ñëwoon nañ fi seet place bi yëpp ba ne place bi jubu na leen pour université bi nekk fi tey jii ci ziyaara bi dañoo na dañoo bëggoon a lënkale ziyaara bi ak teg xeer yi université bi waaye man maa gis ne université bi munaasaba boppam la war a am xewi boppam la war a am nga xam ne su boobaa duñ fa waxtaanee dara lu mooy xam-xam kiñ tuddee université bi itam nga xam ne iniversité la ndax jàngal na ay nit bañ génn nekk ay sëriñ nekk lu nekk ci àddina bi am ay bi di len jangal, ba taalibe yooyu di jàngale yoy yeb dañ ko wara woné ci ca bés bi bay liggéey ci xam-xam nga xam li ci ëpp mi ngi ko defee fi ci kursi téré yi mi bind nga xam la ci ëpp mi ngi ko bindé fi yoy yeb dañ ko wara woné té kursi gogu mu nekkoon yar fa ay taalibeem jangal len talibé dem nañ ba jamono fi mu ne soo seetee leetar yi ñu bind ñoom ña doon jàngee foofu ci kaw si nga xam ne jaxasewuñ kooku dara da ngay jàpp ne ñii dem nañ ci université bu nekk te université bi mooy koosi gii rek passé wuñ ko waaw muy suma baay muy sëriñ Bay muy Cheikh Omar muy Baye Ousmane njaay ñii ñëpp université bi ñu jàngee mooy université koosi bii ak ñeneen ñi nga xam ne mënuma leen a lim waaye ñoom ñépp koo ci gis lum bind ci arab arabiyatu bii rek dana lottal arab yi ca arab ya waaw ñun seen seeni taalibe taalibeyaat lañ bërki démb rek biñ dajeek arab yi xam ne ambassadeurs arab yépp ñoo daje woon invité ma pour ma nekk seen invité d'honneur bi ma waxee ci arab rek ambassadeur yi Palestine bi ci boppam dafa jóg kaala gim lëkkoon mu teg ko ci suma dox drapeau yi Palestine bi itam mu jox ma ko ambassadeur Égypte bi jógee fa mu toogoon ñëw ba ci man ne ma maa ngi lay gërëm ci sa wax ji xadis bi nga rotal léegi ci sa ci sa wax genn wàll gi laa mokkaloon genn wàll gi ci yow laa ko déggee ambassadeur yi Maroc bi jógee fa la ñëw ku nekk rek rafetlu lañ wax ci luga arabiya te ñun luga arabiya ci ñu ci bàyyi rek lañ ko jàngee ndax bala ñuy dem ca réewi arab ya fekk na ñu mokkal alquran fekk na bàyyi jàngal ñu téere yi nga xam ne moo am importance ci langue arab comme maqamat al hariri nga xam ne dañuy wax ne un tiers ci langue arab yëpp mi ngi ci téere boobu yëpp bàyyi def ñu ko jàngal ñu soog dem jàngi fële kon fii suñ fi defee université bo xam ne ci turu bàyyi lay lay lay uyoo su boobaa def nañ université ci am tuddee nañ université itam borom université ñun de luñ man pour topp tànki démb ya tànki bàyyi ak maam ya danañ ko def ndax fii bi fi bàyyi ñëwee ñi ko fi fekk si woon yàlla rek lañu ut si woon amut amuñoon beneen soxla àddina sax ndax suma bàyyi dina may nettali suñ benn bàyyi bàyyi alaaji Omar Kan ca Ndakaaru radiyallahu anhu bi mu ñëwee fii fekk si bàyyi ci Kosi am fi ñetti weer mun a jàng mun yetul murid jàng xikam téere tariqa bi yu bari mu jàng ko mook sama baay ñoo bokkoon néeg bu nekk mu a de sama baay mu ne dañoo tëdd ba guddi mu eeku ne ko damaa bëgg su ëllëgee nga tàggul ma sëriñ bi ma dem ndakaaru xewi jigéen ña te dellu si booba ñoom àddina ak lépp safatu leen yàlla rek moo leen safoon waaw bàyyi wax na ne ñu ngi fekk ay góor ñoo xam ne bala ñoo dem ca seen jabar yi sax dañ leen di forcer pour ñu dem seeti seeni jabar ndax yàlla mooy lépp te man kaana lillaahi kaana allaahu lahu soo nekkalee yàlla yàlla nekkal la su boobaa nekk yàlla gi dafay effacer sa nekk gi yow ci sa bopp su boobaa yow dootoo am yàlla rek mooy am soo ne mu nekk dana nekk xadis ba wéral na ko atani ya abdi taqulu li shay kun fa yakun yow sama jaam topp ma loo ne mu nekk rek dana nekk ñooñun ñoo nekkoon ak Mawlana Cheikh Lislaam fii ci Kossy Baay daf daa wax ne mu ne su ma tukkee su ma takkee suma bagaas pour ñibbisi danga nga ay mag ñu taxaw di jooy xacc ndax li ma leen fay bàyyi di ñibbi kaw di ñibbi te waxtu bu ma takkee sama bagage rek Kawlax laa jëm si réew mi itam kenn gënu koo fonk réewam ñi ngi fàttaliku ci ay élection yu passé woon vers mille neuf cent cinquante def ne su jaree ndax élection yi dafa ñëw tombeekoor bàyyi na su jaree ñu dog suñ koor yi sax pour dem oto ji danañ dog suñ koor yi dem oto ji ndax lii waajib watani la responsabilité la boo xam ne ñun ñëpp la war te daf ñoo war ci suñu réew ndax yàlla barab ak jamono rek la bi moo fi nekk jamono mooy période bi ngay def ci dund gi barab bi mooy place bi nga koy defee barab pour ñun mooy kawlax gi jamono nga xam ne mooy suñ dund bés bañ juddoo ba bés ba ñuy duggee suñ bàmmeel fii lañ ko bëgg a defee itam fii lañ dëkk feneen fuñ dem ci àddina bi rek ay gan lañ fa waaye nag alhamdulilah jikko yu rafet yooyu ñu jëlee ci ñoom fuñ ko yóbbu ci àddina bi rek da nga gis ay nit yu fa jógee topp si jikko yooyu pour pour pour pour am ci walla pour meloo jikko yooyu waaw man ba may dem Amérique foogu ma woon ne danaa fa taseeg sax ku ma wax ne damaa bëgg a dugg ci lislaam ba ñuy dem Afrique du Sud loolu nekkutoon suñ programme suñ programme mooy conférence mondiale bi ñu defoon ci Johannesburg invité ñu ci ñun loolu moo ñu yëkkati woon waaye keroog ba nit ñi xamee ne ña nga fa keroog lañ gëj ca conférence ba sax chauffeur bi ñu doon dawalal suñu oto di chauffeur yi Nations Unies moo njëkk a taxaw ne man imaam mii lim nekk dama cee bëgg a nekk moo njëkk a jël kalimatu shahada semaine bañ fa taxaw bañ toog ci Johannesburg génnuñ fa lu may téeméeri nit dugg nañ ci lislaam ci suñ loxo te wax dëgg yàlla ñun loolu yëkkatiwuñu woon ñun dañoo demoon rek pour teewe ji conférence bi conférence ba itam yàlla defal ñu fa mayam ndax ba ñuy dem ca conférence ba fekk nañ fa deux mille huit cent ONG yoo xam ne dañoo ñëw pour conférence bi ñu select maanaam ñu tànn ñaar fukki ONG ak benn ne ñii rek ñooy dugg ci salle bi ak président yi yàlla def ñun ñu bokk ci ñaar fukki ONG yooyu ak benn même rabita alamil islami dañooy ñëw pour dugg ñu ne leen déedéet yéen seen tur nekku fi mënu leen fee dugg bi may ñëw pour dugg si gis leen ñoom ñuy génn ñu ne ma bul bul fexee dugg sax ñun ambassadeur bi wax na ministre bi wax na waaye maa fiche amul benn fayda may leen déet loolu yéen la waaye xaar ñu ñu seet ñun lan mooy suñu chance bañ demee ci list ba ñu fekk fa suñ tur keroog conférence boobu ñoo président yi ñoo ko def fa doo foofu ba tey jikko yaa ngi jógee fii ci Mawlana Cheikh waaw ndax ndab lu nekk lam nàmp moom lay giix wala la la la ndab la feesee mooy tuuru ca ndab la dégg nga soo nekkee Mawlana Cheikh jaamu yàlla moom la ñu doon digal moom la digal taalibe yépp bay pour dundee maa ngi koy dégg ca Londres mi ngi ci lali deem ku ko tàggu ci kilifa yi ne damaa bëgg a ñëw sira mu ne déet asan na dem leen ci tool yi bët sëb bi na dem leen ci tool yi biñ gënee nekk xale nekk ci daara ji itam dañ daa ànd ak moom daanaka samedi dañ daa jógee Medina dem Tayba ba ba alxemes ñu julli àjjuma su samedi ñu ñu delluwaat maa ngi fàttaliku léegi ci suñ mbokk mi ñu doon gunge Cheikh Ahmad Tidiane Touré baayam baay Cheikh Omar Touré nekkoon fii ci Ndofane benn bés ñuy dem Tayba taw bu méttee metti dab ñu ci yoon wi yére yépp tooy bàyyi ne nañ jàll Ndofaan ma dem ci Cheikh Omar mu utal ma mbubb man sama mbubb yépp tooy na ba muy dugg rek la ne Cheikh Omar utal ma mbubb ma sol man sama mbubb yépp dafa tooy dégg nga eh, noonu la doon liggéeyee ma ngi ca tool ya ma ngay tawte su génnee itam mi ngi oote lislaam bu wër lislaam boobu nga xam ne fexe na ba convaincre Afrique gi yëpp nangul nañ ko gannaawam àddina bi yëpp nangu nañ ndax xam nañ ne li muy oote du bànneexu bakkan li yàlla wax rek moom la doon wax nit ñi ndax moom wax na ne isa saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla man fal masiru baidu ki gën ci nit ñi suy dox maa ngi ca topp waxtu wu taxawee du ma séq benn jéego su jógee fii maa ngi amee leetar bu soo bind sama na ko maa ngi tukki pour dem jihaad ak sama xalimba ak suma roxo ak suma bakkan pour jubal jaami yàlla yi maanaam su jógee waan fii itam ci loolu la nekk li nga xam ne moom la nekkee woon fii su fi nekkee ak jaam yi su génnee itam ci loolu la nekk soo demee euh, mise britannique dang fa fek ben rapport ñi wax ne Cheikh Ibrahima Niass ci ben jotaay ci Ghana lu mat juróom-ñetti junney nit dugg nañ ci l'islam ci loxom rapport boobu ma nga fofu ba léegi bay bi ko waxe ci wayam daf ne laqantu alafan walan tuadda at-tawhid fatu hadda فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فطابت النفوس نيوم جروم نيت جن لا نيوخ واي باي موم بيم كوي واخ سي ويام دافنا اي جن جن يون خمنا كين خموت سين ليم سنا لن بات لا اله الا الله محمد رسول الله موي بوريا موي توب muy ña fa teew ñépp ñépp waxandoo kook man bakkan yi teey ca wax googu ñu nga xam ne wax nañ ko dégg nga kuffaar yeeg majuus yeeg umaraaw yeeg ñépp àndandoo ak moom di wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah kii moom bés bi nag muy Seydi Ali Cissé comme ni ma la ko waxee léegi muqaddami Baay Ñas la taalibeem la xalifaam la waaye suma yaay dafa wax Cheikh Tidiane ne ko dañuy wax ne Baay bëgg na Sëriñ Aliou waaye Sëriñ Aliou itam ku bëggoon Baay la ndax soxla Baay bu taxaw du nopp lu mukk lu may soxla soo sa faju na noonu lañ nekkee woon e, seen diggante nag yàlla rek moo xam waaw yàlla rek moo xam ni ko bàyyi bëggee woon moom bëggee na bàyyi lu ëpp loolu waaw bàyyee ko jàngal gannaaw alquran ji mokkaloon ci maamam maamam Samba itam noonu la meloon ak maam alaaji Abdoulaye dafa liggéeyal maam alaaji Abdoulaye ba maam alaaji wax ne su ma amut ci àllaaxira lu may lu fees tënk maag Samba Thiané ñoo koy bokk Samba moom mooy maamam ci wàllu yaayam moo ko tariloo alquran itam waaye daana ko tooñee benn wax ne ko ay àlli rayna sama bop ba tare lolou alquran ma ngay de rek ab serigne joge fele nga top ci nan moy sama serigne fàtte ma ko maam loolu koy ñemewuma ko ko ko def nak ki ma lay wax nak borom jëm la kenn doxut sa ak mom ya nga sa ci mom rek mamam lolou la gisoon ci and bi dem na bané man de xawma serigne bi serigne lalla suma gem gem ne gëm-gëm nelaw rek gis muy dox suma digënté ak waaw moom itam yàlla wan na ko baay ci nga ànd bi nga xam ne Seydi Ali nar na ko ànd ak baay bi maam alaaji demee miraas si baayam 1922 ba tey ca weeru koor wa baayam dafa gaañu ci ñetti fan yi weeru koor bésab altine baayam itam ba mu gaañoo gis nañ benn këyit ca njoroon naayam mu saxal ca ne gis na yonent bi ñaari yoon ci lu duur nelaw dal di ràññeel place yi nga xam ne fa la leen gise ñoom ñëpp nag taalibe Maam Alaaji Abdoulaye mii la ñëwoon ndax suma baay wax na ma ne bi mu ñëwee Kawlax maanaam ndax mbaam alaaji ba muy ñib si noonu daf ko indiaale moom la mujj bindal dars ci laxdar yi moom la mujj tëralal dars moom Seydi Ali moomu mu ne biñ ñëwee Kaolack mu ne daf koo romb ci mbedd muy jooy mu ne ko lan la mu ne ko xale yi dañoo sàcc sama paaka bi mu ne ko Aliou ku mel ni yow warta jooy paaka ndax machad bi ma la gisal bi ma gisal sa bàyyi démb ci àllaaxira machad boobu ku ko am waroo jooy ay paaka bàyyi ne na dafa yàgg a sonn ci moom mës lekk bàyyi ko suy tëri sax ne ko Aliou kaay ñu dem tëri jëng kooku nag moom lañ moomale bés bii dama waxoon ñoom alaaji ibrahima wadd ñi nga xam ne ñoo jiite ziyaare bi bañ ko bëggee njëkk a sos waxoon naa ne ma suñ koy suñ demee bay sos ziyaara du ne nit ñaa ngi def ziyaara rek nañ ko defal waaw man mun naa fasa boobu duma ci dugg ndax duñ yokk sëriñ Aliou dara maraatibam am na ko ba pare ci liggéeyam ci ñaqam ndax moom waxal na boppam gannaaw bu fi baay jógee ne man su ma dee léegi pertu ma lu suma baay bëggoon ci man am naa ko lu suma sëriñ bëggoon ci man am naa ko lu ma bëggoon ca yàlla jot naa ci kooku moom lañ daje fii tey pour waxtaanee ko ma waxoon ñoom bàyyiwaat ne suñ koy waxtaanee pour fàttali nit ñi ay jikkoom pour jumoo ca jikko yooya d'accord naa danaa ci ànd ak yéen waaye suñ koy waxtaanee na suñuy dajale pour ne diw defal nañ ko ziyaara ala foog ñu defal sëriñ bi itam ziyaara man bokkum waaw waaye jikko yi te waxtu woo taarixalee nit rek dundal nga ko historien yi ci arab dañoo wax ne ibnu xaldun sax moo ko wax man war raxali shaxsin faqad ahyaa ku taarixal nit rek dundal nga ko te taarix boobu tey ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom muy ñoom Baye Wade ñi Barham Sall sëñ Omar Gueye ñi nga xam ne ñoo nekkoon moom taxoo ak moom guddeeg bëccëg ba ci Souleymane Seck mi ñooñu tey suñu waxtaanee ndaw yi danañ jël ci jikko yooyu te loolu rek lañ ci jublu innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahabu nation yëpp ñu ngi taxaw ci jikko ju rafet rek su jikko amatut rek nation amatut démb wax naa ko barki démb wax naa ko fële ci jataay ba ca méridien ne benn mag dafa ma wax ne ma nangeen wax jigéen ñi ñuy nàmpal seen doom yi ak seen seeni ween te bàyyi biberon yi biberon yi meew yi nag la xale yi suñ màggee dañuy mel ni ay nag yu taxaw mu ne soo ciy waxee nit sax ne ko soo ne ko diw pour yónni ko sax mu ne la lan la nga ne ko waxuma la waaw <laughs> dégg nga mun ma ay jikkooy nag moo fi nekk waaye suñ nàmpoon meewi doomu aadama comme ñoom danañ am yeneen jikko yoo xam ne dana uuteeg jikko yooyu